wooñu ñun presse bi ñun tamit ñu ñëw taxaw taalal micro xam temps tamit wax dëgg dëgg information bari xam nga Sonko mhm. ko mhm. moo tax tey euh, euh, <laughs> dañu wax dëgg nag quand loolu benn waxtaan campagne bi ñàkk na xorom lewet na amul xorom amul dara Euh, dëgg-dëgg neexuma neex mais mu sell man man bu yàggee ma tey sama jóola naan mu sell namm nañ ko Sonko namm nañu la parce que nag Sonko ñu dëgg-dëgg moo doon yëngal géem mi di bruit yi def ay affaire xam nga xumbal ah xale boobu daal dëgg-dëgg ba neex mais gën a joolaa daal am na euh, as kii asiko yi moom kii nañ ko léegi nag comme ñun euh, Sonko nekk fi ba ñu Moussa Diop ñëwee nii <laughs> wooñu ci ay scandale ñu ñëpp ñu naaw dem pour am ay vues man mi gën ñaa am vue mm. ñu daw dem ut vue <laughs> ba ñëwee mu taxaw ma ci laa comprendre man ba ma déggee affaire daa ne Moussa mm. waaw léegi nag loolu la wax mais Adama su dem beneen lièvre mm. xam nga kii mooy Adama Fall na euh, euh, en réalité man Adama su ma dégg dafa ne comme Moussa ni mu def ci bii noonu mooy noonu la defoon ca bee <laughs> ca bee li mu defoon moom la defoon ca bee mooy bañ koy waaj a dàq. waaw dafa wax ba pare rek timing bi le timing est bon. parce que amoon na information bi. waaw xamoon na ko. parce que des fois xam nga gars yi dañuy dañuy dañuy dañuy souffler yenn. information yi su dee waaj di rëq ndig. xam nga dafa am gars yoo am ay xarit ne la saa yi defal nànk de waaj mi ngi sa que décret parce que décret bi doon waaj a dugg conseil des ministres rek mu def communication dem wax seen wax wax wax wax wax xaru ku yàq Cheikh Abdou. <laughs> waaw xam nga man na ko jàngat. ci mm. jàngat bu bu dëgër. Mm. mooy dañuy analyser d'abord. Mm-hmm. moom ci ban sphère la nekk. waaw là où se trouvent ses activités. Mm-hmm. la relation entre monde et le peuple. mooy mm-hmm. l'activité politique. te monsieur Fall la politique est vue comme une rivière xam nga tubaab bi day wax ne on se baigne pas deux fois dans une même rivière. parce que la rivière coule. dëgg la politique réalité lundi bi du bokk ak ajjuma réalité 2021, et mhm. et chaque matin. Mhm. l'eau amène ses cailloux ses saletés. Mhm. une nouvelle douceur. ça dépend de ci yow bi ngay tombé. ñu tombé ci un moment boo xamante y a eu une crue parce que la rivière c'était tari dafa toog loo xam. Hmm. de grand de grande valeur. le peuple dañoo reculé. parce que dañu observer ci su ma ko sañee wax benn rakkaay boo xamante ne ku jóg rek parce que li indi mooy ñu ne deux nangam candidat mhm. solennité bi daan am bu ben, ca kandida cent candidat ci jour am ñu bokkoon seen i si parrainage ñëw di négocier ak Mame Boye pour dugg ci biir coalition bi ngani ma waaw loolu ñu teg baaram <laughs> danañ ci ñëw fa de xam xam

du yak yàq à la limite wala à l'extrémité ñu dem ba di déchirer un tissu social wala di yak un destin tinit national politique newuloon fof donc ndox momu di tuxu des grands hommes se retirent Wade mhm. Ablaye Matar les Alsan Dialy Ndiaye yi nga xam ne gisutuñu leen. Mm-hmm. les Moustapha Macky Sall qui va partir Moustapha Niass. qui a mais on aura un grand homme qui s'appelle nomme Ba qui n'est pas dans ces choses. voilà si vous voulez c'est pas un candidat de bling bling. si vous voulez. Mm-hmm. mais candidat bling bling yi ñoom bëgg si vous voulez. candidat de négo candidature de négociation. waaw bling bling bling bling bari na ci. <laughs> yaa ngi dégg yi candidat jëtëtër yi. waaw yaa ngi dégg Adama. waaw maam booy la mo mooy candidat jëtëtër yi euh, dafa am ñu dem. Mm-hmm. mu vide nak la rivière s'est tarie ñi ñi ñi ni mën fay ak ñi mënul fay nak xeyna bu ñëk ku mënul fay ñemewoo dugg ci ci ci ci ci ci ci ndox mi. Mhm. mais bi bi mu bi mu tariyee ba paré mu mu xawa nek ben saison sèche en valeur politique. Mhm. ñëpp ñëw ñëmé ko. Mhm. surface bi fess dal une crue s'est créée mhm. en en une fraction de seconde mhm. la hauteur de l'eau est revenue à un niveau où maintenant certains vont patauger Quand mhm. moo mën atteindre la rive mooy fi fini wax donc nous nga xamante une réalité nak. la crue est revenue Moi, la vraie réalité Moi, le poste de président Moi, être dans le leadership biñi dafa am parce que am na parce que je défends toujours qu'on peut pas être leader sans fellowship c'est pas possible on peut pas être un leader sans avoir des gens qui te suivent un un, un nombre conséquent wala des autres leaders derrière toi loolu fellowship des des des gens qui te suivent des cadres par exemple une structure d'enseignants une structure d'étudiants pas jël sa say jox leen ñett ñu toog ci télé bi ne ñun les étudiants de Adama Fall non waxuñu loolu mais une machine solide parce que da nga dem ci Sénégal yi ne leen j'ai un projet politique ñu ànd ak yow yooyu dafa bariwul maanaam on a beaucoup plus de motaristes politiciens que d' acteurs politiques réels nga xamante ne am nañ pas sax waxuma sax base parce que la base ça se crée mais dañoo ñëw rek da motariste waaw motariste waaw ça veut dire quelqu'un qui qui s'occupe qui est repéré par le bruit. Si on dañ arigoni vu train bu vu mm. mm. ak melowa mm. ko ba ba waaye xol bu fekkone à l'époque deug deug ko nañ ko amon na arigoni ba. ñi dañ dan def métaphore parce que Moutar, buy daw goudi lumière bi fum tollu ñu mais benn nit rek lay yàpp. Mm-hmm. loolu mooy personne waaw mm-hmm. mooy mooy mooy say candidat nag. voilà mooy métaphore bi may wax mooy maître Sa Diop. waaye yow sañ nga